ñu soññ ëllu xasida yëpp soññ ñi kuréel ñëpp soññ ñi durus ñëpp soññ ñi rajis ñëpp fu kuréel xaj fu nit xaj ci diggante jumaa jeeg li ko wër lépp ñu ne fa di dundal bis boobu ba juróomi waxtu noonu la ko waxe la cay war nag lam ca tàmbalee jot nañ defar na lépp waaye ñun ñi it ku ne xam na ni sëñ bi dafa woote ci liggéey boo xam ne ñu nit ñaan nañ ko sëñ yu si ñaan na ko ñu nit ñu ci mën a barkeeloo rek ñu barkeeloo ko kon nag kenn ku ci nekk nga waajal ko jàpp ni bis bi moom sëriñ bi na yeyoo na ay téeméeri téeméeri nag lu ci waay def rek doyut loolu noonu la ko waxee kon nag nañ fexe ba gàllo gi dem goo xam ne wóor nañu dina yegg fa mu jëm ñu ba kenn ku ne la nga am mu yóbbaale la ko ci li ci bis ba def ay ndaje xool ni ko sëriñ bi nu koy nu koy gën a yewe nal ak nu muy gën a baaxe waaye na kenn ku ne daal waaj ko wàccaay woo xam ne na nga xam ni moom mooy bëgg ko sëriñ bi waaw la la ca nekk ci pas-pas yëpp nag am na ci loo xam ne moom maanaam néexut a wax ci ci làmmiñ ndax sëñ bi na mu ko waxee moom képp moo ko mën a waxee noonu waaye daan nañ xam ne dañ doon ni ko sëñ am sa waxee ñun dañuy déglu ndigal doon xool lu lay bégal doon xool lu ñu la liggéeyee la fi ñu joxañ nag incha allah foofu la ñu fas yéene nekk amatuñu jénn yitte ju dul jooju kon nag benn fan boobu nag ñëpp waajal xam ne ko yendoo ni ko sëriñ bi bëggee luñ am ak xam ak luñ am lépp incha allah fas nañ ko ci yéene dugal mu ñu bàyyindu ko ñun ñi nga xamante ne jëfe moo ci suñu wàll incha allah nan fas yéene kenn bañu cee man waaye nañ xam ne jëmm ji ñu àndal nga xam ne sëriñ bee ko sëriñ bee taamu woon gis ko tew tawféex yu bari daje si sëñ Moustapha moom sëñ Mahmadan mii ne fa ñi nga xamante it mooy sëñ Ibra euh, Guèye ak sëñ Abdoul Ahad Touré fekkee ko loolu doonaan mbégte moo xamante ne kenn xamul fu mu toll kon man ci ndigalal sëñ Mouhamed sëñ Amsatu mii ma leen di wax ne ndigal ndigal jóge na ci sëriñ bi sëñ Mouhamed Mountakha jox na ndigal sëñ Amsatu mii mu ànd kook mboolem koo xamante ne da ngay liggéey ci xaside yi ñoo xam ne bés a ngi suñu kanam bis boo xamante ne dañu fas yéene yëngu ci xaside yi delloo lépp sëriñ Tuubaa ndax sëriñ bi mooy xaside yi nin ko bëgg a fonkee ak nin ko bëgg a liggéeyale xaside yi mooy waar wi loolu nag bu ci sëriñ bi wooyee seen xam satu mi waxu ko kon dafa mel ni lépp matale na incha allah bis bi nga xam ne mooy doon bis bi jëkk ci weeru muharram buñ ci tolloo dina am woote yu gën a yaatu yoo xam ne dinañ ko def am na liggéeyub njàngum xasida mu yaatu mu rëy moo xamante ne dina am ci Touba gi ci diggante jumaa euh, jumaa ju mag gi muy Touba ba ci Daaru Minam fépp fu fi ab dongo xaj fépp foo xamante ne jànkati xasida yi xaj nañ fa dinañ ko waajal ba ñu ne fa di jàng xasida yi dundal ko ci teewlu goo xam ne pas-pas bi lam ca wax sëñ Hamsatu mi loolu moom kenn ku ci ne lay sa wàll ci teewlu gi rek lay ne delloo lépp seexul xaddim loolu kon man dama ko doon ubbee di xam ne ne kon mbooleem ñi ñu àndaloon ñu xam ne suñu yéenee mat na waaye Mbàkke ni la sëriñ bi doyloo yàlla na la fi yàlla suñu borom bàyyi nga yàgg fi lool ndax ni nga koy liggéeyal yaa ngi koy liggéey liggéeyal ci la mu gën a taamu mooy xaside yi ak yar dongo yi wan leen ne leen nit ñi de ñu ngi daw di wuti ji lu ne waaye ci bu ñu xamoon li nekk ci yam ci sëriñ bi ak yëngu ci moom ak fonkal ko xasidam yi mel ne lu baax lu ne moom moom moom la suñu borom di dàq mu ñëw fekk si ñu bari na lu nit ñi di ragal di ko daw ak di wut pexe yu ne fekk na saxoon ci sëriñ bi moo ca gënoon a gaaw kon sa taxawaay bii Mbacké yàlla ko suñu borom yàggal